Amen. بشر الأمم اللهم صل وسلم فلا تدوم وتمئل نيام الأنام وحاشر الأمم وبعينك ما نالني من هوى وذل وما مسني من سقم وأنت العليم بمن كدني بصون ومن اشتفى واتقى اللهم صل وسلم على سبيل أتى بالهدى والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى وقيام الأنام وحاشر الأمم وهو أن أنت القدير عليه وأنت التجير الذي بهما تعتصم وإني كثير الخطا والذنوب وخوفي بهم علي تسام اللهم صل وسلم على والكرم صلاة تدوم تبقى إلى قيام وقد جاء أن البلاء والمحن ينيلان فضل الثواب الأمام وأنهما يمحوان الذنوب وأنهما يجزلان القسام اللهم صل وسلم على به أتى بالهدى والكرم, والكرم صلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم وتوالت ذنوب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 ملتزم اللهم صل وسلم على نبي الآداب الهدى والكرم صلاة تنوم وتبقى إله سألتك يا خالقي طريعا بقلب سليم ونهج الأمم بشيء ولا شيء أعظم منك عليك أيا العلا والكرم waaw salaatan taduumu wa tabqa ilaa waaw qiyaamil anaami wa xaashril umam bimaa qad dacaaka bihi aadamun waaw wa nuucun fa aaba bi naylil isam kadaaka alxaliil ثم الذبيح وهود ولوط هداة الأمان اللهم صل وسلم على بالهدى والكرم وصلاة تدوم وتبقى إلى قيام الأنام وحشر الأمم نبي أتى بالهدى والكرم ومن صلاة تدوم تبقى إلى قيام الأنام وآجلهما ووقد من عدمت ضريعا له فأبعد عنه بذنب ألم كما أبعدتني ذنوبي عنه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 قيام الأنام وعاشر الأمم Cheikh Seydi El Hadji Malick خبير في كفالته وبالعليمة خاص القدر في القلم سيد العتيم لنا فما مختار في شصيد العهد مصطفى شبابه مع غلام شبه ابدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم سوى شبابه غلام شبه أبدا واليوم شهر وعام شهر ذي الكرم شبابه غلام شبه أبدا واليوم حسين العديم علينا نحابا بشهرين في الانجيل قيام وفي دال الغدا ممسك الجدران ذا في مبني شبابهما غلام شبه أبا في هاء وتسرع في واو وفي زاي يسعى سعي محتفل تكلم في طائفة صاحته في الياء يرمي ويولي أبصار الجسوم شبابه غلام شباب عامين جفرا كان ذا أدب لله ذر أديب شب في اليوم إنه إذا أراد الله نشأة مولنا أبانا من نوره نورا بالعالم وإنه إذا أراد الله نشأة مولنا أبانا من نوره نورا بالعالم الحاج مدد وإنه إذ أراد الله نشأة كان آبانا من نوره نورا بالعالمين إنه إذ أراد الله نشأة كان آبانا من نوره بجاكه وإنه إذا أراد الله نشأة من أبانا من نوره نورنا بالعالمين وإنه إذا أراد الله نشأة من أبانا من نوره نورنا بالعالمين إذا أراد الله نشأتنا أبانا من نوره نورا بالعالمين إذا أراد الله نشأت مولد أبانا من نوره نورا عني لولا النبي رسول الله لاخترت كوننا بالأخشبين ولكن من بالكرم لولا النبي رسول الله لاختوري نبي لخشى بيدي ولكن من من كرمي أفاق بالقرن أو قرن الفعالي بدواي أو قرن المنازل ميقات بجنبي وإن نبي رسول الله لاختوري في الأخشبين ولكن من من كرمي وكان لم يشعرا بالجن أو نادى مونا وإذ صرفنا فنال العلم كالعالم لولا النبي رسول الله لا اختري نبي الاخشى بيني ولكن من منك ربي وإن صرفنا فنال إن صرفنا وإن صرفنا فنال العلم كالعالم اصرفنا صرفنا اصرفنا صرفنا صرفنا فنال العلم إذ صرفنا إذ صرفنا وإذ صرفنا فنال العلم كالعالم إذ صرفنا صرفنا إذ صرفنا صرفنا إذ صرفنا فنال العلم كالعالم إذ صرفنا إذ صرفنا Maodo Maodo wax isarafna sarafna isarafna sarafna isarafna fana lal ilma kal aalim isarafna إذ صرفنا إذ صرفنا فنال العلم كالعالم إذ صرفنا إذ صرفنا إذ صرفنا فنال العلم كالعالم إذ صرفنا إذ صرفنا صرفنا فنال العلم كالعالم وإذ صرفنا إذ صرفنا وإذ صرفنا فنال العلم كالعالم وإذ آتى ابنه عدين كان جاورا من خير الجوار على إكرام الله مودنا وإذ صرفنا وإذ صرفنا وإذ صرفنا منال العلم كالعالمين يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدنا المختار في القلم يا إلهي واجزينا أبدا عنا محمدنا المختار في القدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم لو نحن والإيجاب قدره به فتح الله الكنوز البوادية له الحمد والإجاد جل جلاله والإمداد من فضل المنير نواحيها ولولاه لم تدري الخليقة قدره به فتح الله الكنوز البوادية سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الدوحة العظمى يظل بذله يمن بلا من وينفي المعاصي هو المنتهى مجدا وفخرا وسودا wal muntajaa yawma yashibu nawaasiya maam Mansour nee na wa waluman labaa alastu bi rabbikum wa ruux wa rahmaan kaana munaajiya wa qad aasha fi alwaari xiinan musabbihan wa jaaba buxuuran ashatan mutadaaniya wa kaana nabiyan bi nubuwati aaliman وادم بين الماء والطين ساويا وأنت الذي أسس كل محبة ولم يكن ذاك الوقت غيرك باديا لدى من حجاب النور كان حجابه وبالكبرياء والعز أصبح باقيا سير الحاج محمد المنصور له الحمد والإيجاد jalla jalaaluhu wal imdaadu min fadlil muniiri nawaaxiya walaw laaw lam tajri xariqatu qadraahu bi fataha llaahu kunuuz al bawaadiya taqallat fi l aslaabi min sulbi saajidin ilaa saajidin maa zaala majduka raasiya yonent bi وأنت الذي حسست كل محبة ولم يكن ذاك الوقت غيرك باديا وصليا يا إلهي وجزيا أبدا عنا محمدنا المختار في الخدم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 wa man tabiahum bi ixsaanin ila yawmi ddin asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu Bakar mi leen di bu baax asalaamu aleykum wa rahmatullahi ngi nuyu bokki jullit yi àddina ne ñu nuyu bokki jullitu àddina bi yëpp di ziyaara ñëpp di ndokkeel itam nag ñépp ci guddi gu màgg gii ci guddi gu màgg gii xam ni benn guddi tolluwul na moom xam ni benn guddi tolluwul na moom eh, ci guddi gii ne ci guddi gii sànq sëriñ Abdou wax na ko ne sànq rek Moulay Abdoul Aziz Al Amin wax na ko nee ci guddi gii neena ci guddi gii ci la jaa alxaqu ci la jaa alxaqu wa ci la xewe bi yonent bi dikkee bi yonent bi dikkee lu lëndëmoon leer na lu lëndëmoon leer na mooy guddi gii ñu toog tey ne di ci ndokkeel ñépp nag di yëkkati nag kàddu ci ndigal ci turu Cheikh Ahmed Tijani xalifatul aam li taifati Tijani di jotal baatam di jotal baatam ci képp koo xam ne dégg nga baatam bi muy waxe moom jàppal ni baatu Cheikh Ahmed Tijani la ñuy ndokkeel nag doore ndokkeel bi ci sëriñ Aliou Mbakke mii di sëtu Cheikh Ahmad Bamba ñëw toog fii nga xam ni fi la maamam Cheikh Sidi Hadji Malick daan toog kon ne ñu ndokkeel ko moom jataay bii jataayam la kaddu gi it kaddoom la ne buñ ci jógee nag ndokkeel Cheikh Seydi El Hadji Malick ne tombe nag mooy waral ay gaaf lii kat doxalinu Cheikh Seydi El la ne Cheikh Seydi El a ngi nii toog ne kon moom dafa yàkkamte rek waaye mënoon na bañ a jël kàddu gi te bàyyi ko ci ñaar ñii ñu doxal ko ni mu war a doxi fa tabaarakallahu foofu it nag lay mujj de ñu sant yàlla nag nee daal moom wax ju gàtt rek lay wax ñu sant yàlla ci lu bare bare ci lu bare bare bare alhamdulillahi ala kulli xaal ndax yàlla ah, doy na ci tegtal doy na ci tegtal ni eh, daaw baren ni daaw baren tàqalikoowul ak ñun ci li ñu ñaanoon ak nag sax li ñu ñaanul woon te mu baax ci ñun mbaaxam yóbbu ko ak barke yéen ci Yàlla Muhammad mu di ñu ko defal ba ñu tasewaat fii ne daje bii ñu tasewaat fii te toogoon fi daal ba ñu fiy jóge dañoo ñaan yàlla yu bare boole ca fekk déwén yàlla may nañu ñu fekk déwén diggante daaw ak ren nag nit mën na fee fexe lu ne waaye mënul fexe dund ba ren daaw ba pexe àggu ca ci dund daaw ba yàlla rek moo koy maye yàlla may nañu ko nag kon lu ñaan nga àndandooloon loola loolee am na am na buñ ko yëgul it buñ ko yëgul it seede saa ngi nii seede saa ngi na gën a sax yàlla na gën a sax yàlla na gën a nangu yàlla na gën a barkeel bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam ne bu loolu yëpp passé nag nee nañu ku lakk mburu tudd dëkk nee nañu ku lakk mburu nag tudd dëkk ñuy ñaan yàlla lu ñu jëlee ci guddi ci guddi gii yàlla nañu ko yàlla jo joxal Cheikh Seydil Hadji Malick muy sunu hadiya ci moom mënuñu ko fay de lii ku ko fekkee woon te kenn fàggalu la ko sa xel war caa dem kon nag ki nga xam ni moom moo ñu ko fàggul doxal ko ba mu ami tànk mën a taxaw mu bàyyi fi njaboot njaboot googu xar ci seen tànk tubéy xar ci seen tànk tubéy lu nañu daj ko ci ba loolee taxaw nii muy njabootam ñu baax ña sëriñ Babacar Si radiallahu anhu cheikh alhaj Mouhamadou Mansour radiallahu anhu mawlaaya cheikh alhaj Abdoul Aziz Si Dabbaax radiallahu anhu cheikh Seydi Mouhamadul Habib radiallahu taala anhu ak seen mbokk ya ak seen nawle ya ndax kat guddi gi dañu wax ni bi ko Cheikh Seydil Hadji Malick di fondement góor gi alxaaji rawaan Ngom la ko àndaloon ñoom ñaar ñu doxal ko ci seen guddi yàlla fekk leen ca mu barkeel ba demee nii tey booba wéet nañu ñoom ñaar wéete nag alquran gàmmoo ko ci seeni diggante tey jii gàmm gi yaatu na ba ñépp ngi ci buuxante kon liggéey bu yàlla nangu la firnde jaa ngi nii yàlla ko yàlla gën a saxal noonee nag Cheikh Seydi Hadj Malick radiyallahu anhu bés bii moom la tànn ci bés yi wax ni leyla alwilaadati xisbatan ida lam yakun waxu nitu yàlla yi dafa jege waxu yàlla yàlla bu la waxee lu sa yaakaar di aju mu dugal ca charte inna alladina amanu bu ko waxee yiw war ca topp mun la wa amilu saalihaat inna alladina qaalu rabbuna allahu yàlla ni wax nañ dëgg waaye nag nañ ma ca tegal njub inna alladina qaalu rabbuna allahu su mastaqaamu la topp ca gannaaw bala nga cay jot istiqaamatu am fa tabaraka allahu ñoom it ida lam yakun naxwa alxaraami udhulu gàmmu day ku bëgg tuyaaba ca yàlla mën nga màggal guddi judd yonent bi ngaa màggal guddi juddu yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam defe naa ni yoon la wu yomb woo xam ne dana defar biir ne defe nañ daal yoon wu yomb la wu baax woo xam ne dana defar biir dana defar biti mu ni nag mu ni nag waaye nag waaye nag ka nga xam ni ci loxoom lay mujj ka nga nag ci loxoom lay mujj lay defaru defaru lay defaru defaru seet ko fokk mu seet ko ba mu dëppoog ni mu ko bëggee mooy fa muy war a jaar na nekk yoon wu jub xoj sallallahu alayhi wa su ko defee nag Cheikh Seydi Hadji Malick bés boo bii la tànn sant ko nag ñépp ndax nitu yàlla boo amee njaboot te xaw a mos ca yàlla dara te xam ni moom ku mu àndal dana mës a taxaw ak yow ci kanamu yàlla ngeen wax na ngeen ànde woon nitu yàlla yi dañuy defar seen gannaaw ni ñuy defare seen kanam fa tabaarakallaahu bàyyi fi nag loo xam ni ku ca jàpp ida lam yakun naxwa alxaraami na ngay doxale ida lam yakun naxwa alxaraami du rek de lépp la sa dund yëpp loo cay doxal te xaraam dugg ca lu jub rek la yàlla gërëm ko daa ca am la ca bëgg waaye waaye ki la fàggul loolu nag te yow moo mii mënoo ko woon a yow ndax jamono ji ku ci bëggoon a fàggu gàmm ba mu taxawi nii bu fekkoon ni gàmm amu fi daa sonn lool ndax jamono ji leneen yitteel na leen lu dul gàmmu su gàmmu siiwul woon ba noppi kon dootul deme nii waaye tabaarakallahu mag ñi ñu baax lañu yàlla nañu leen yàlla fayal te yàlla taas ñu ci seen barke ñuy ñaan nag lépp lu fi am yàlla na ko yàlla nangu bu ko yàlla nangoo yàlla nañu ko yàlla joxal Cheikh Seydi El Hadji Malick ak mbokki jullitam yépp ñi mu àndaloon ñëpp ñi mu bokkal ñëpp ñi mu jamonoonteel ñëpp ñëpp xaj nañu ci yiw yàlla fu yàlla na mu yiw bu ko fa defee ñëpp xaj ca yàlla nañu yàlla taas ci seen barke bi jaahi nabil Mustafa sallallahu alayhi wa sallam ñu wax leen nag ndokkle ñu wax leen itam nag déwénati yàlla nañu ko fekkewaat fekkewaat ko fekkewaat ko fekkewaat ko te tal ko nag mu ànd ak ak sago ñu bañ a naax bañ a wopp bañ a def dara yàlla nañ ko yàlla boole defal bi jaahi mu mustaba ne sunu kilifa gii ci sunu kanam ak rakkam yi ne ci gannaawam ak doomam yi nekk ci gannaawam yàlla na leen fi yàlla boole bàyyi sàmm leen saxal leen wéral leen yokk seen sutura yokk seen barke te yàlla boole ñu ca nag ñu nit ñu di ja mos ñu nitam ñu bokk ci biir groupe bi ñu ngi ci biir groupe bi lu ñu am rek ñu sedduñu ci yàlla na yàlla dogal lool bi jaahi nabil Mustafa su ko defee nag ne moom wax ji du gudd lool rek la ci doon wax ñaan yàlla mbooleem ku fi ñëw booy dellu sa dellu yàlla na gën sëg dikk yàlla ñu ko yàlla boole defal kenn ku ci nekkit yàlla na nga dellu ak mucc ak tuyaaba yàlla ko yàlla def su ko defee ñu ndokkeel nag këru diine yi ndokkeel kër Cheikh El Hadj Omarul Foutiyu sëñ Bachiru Taal ca Louga ñu di ko ndokkeel kilifa gu mat kilifa la ku baax la nitu yàlla biir la ñu koy ndokkeel di ko ziyaara di ko dalal jàmm di ko wax ni mboolem ñi mu fi yónni ñépp ñëw nañu fi bokk ak ñun bés bi te nag ñun ak moom ñoo ko war a bokk nag ndax fa ñu yàlla boole fekkewuñ ko waaye yàlla la soob mu boole ñu ni mu ñu boolee muy boole bu kéemtaane nag jarul sax tasaare nag waaye boole bu kéemtaane la boole boo xam ne bii du hasard de dogalu yàlla la yàlla la soob mu dugg ca ñu doxale ko ni ñu ko doxale fa tabaarakallaahu buñ ca jógee ñu dem Touba Cheikh Seydi Mouhamadul Muxtaar Mbakke ñu ndokkeel ko ca màggal ga ndokkeel ko ci gàmmu gi boole ko nuyoo bu ànd ak ziyaar ñaanal ko yàlla yàlla saxal ko barkeelal ko guddal fanam wéral yaramam moom ak njabootu maam borom Touba yépp buñ ca jóge ñu ñëw fii ci Njaasaan maam bu mi fi ne di kilifa di kilifa gu baax gu woyof gu am yëg ndokkeel ko ñaanal ko yàlla wér ak gudd fan yàlla ko yàlla defal dem kër maam Alaaji ci Thiès dem Ceneba dem Kaolack dem Sokone dem Laayeen dem fu nekk daal bàyyiwunu fenn que Chérif Mouhamadul Habib ñépp rek ñu siyaare leen ndokkeel leen ñaan yàlla ñaanal leen yàlla ni ñuy ñaanale suñu bopp sàkku ci ñoom ñaan it ñu ñaanal ñu yàlla bu ndee ñaanalante léegi ñépp defaru boole ca nag nangoo bokk li ñu yàlla boole di ko yéwénal muy mbokk gi diine ji rafetal ko loolu lañu yàlla sant te nag bokk gi alalu yàlla la yàlla nee na ku ma ko teg ci sa loxo rek maa ngi topp ci yow di seet ba xam nooy def ak mbokk ga yaa ayuha nnaasu taqu rabbakum alladi xalaqakum min nafsin waxida wa xalaqa minha zawjaha wa baha منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا kon déedéet bokk du neen ñi nga xam ni ñoo ko bokk boole wuñu ko seen bokk kon nañ ci yéwénante nit du tànn ay bokkam yàlla ko koy tànnal tànn yàlla nag kenn waru ko fa bàyyi di wuti sab tànnu bopp kon yàlla nañ ci yàlla defal tawfiq ba ni ko yàlla bëgge ñu defe ko noonu yi ba léegi nag li ci des nag li ñu dénkaane lu ci ne teg na ca wattaqullah diggante jullit yi yi war a ànde lu ci yàlla wax rek teg na ca wattaqullah ànd leen te rafetal ànd ga wasbiru wa saabiru wa raabitu wattaqullah innama almuminuuna ixwatum fa aslihu bayna axawaykum wattaqullah ila axiri kon ñu sant yàlla bu baax cant gi du doy waaw ndax xéewal yee xéewal yi dafa bari lool xéewal yi bari na de foo teg sa tànk rek wallahi yaa ngi ci xéewal fa tabaraka allahu alhamdulilahi rabbil alamin nee keroog rek bi ñu dooree burdu bi bismillahi rahmani rahim la ñu waxoon jataay bii moo ci des kon alhamdulilahi rabbil alamin moo ci des yàlla ñu yàlla defal tawfiq lii waxtu wi gàtt gàtt dogalu yàlla xaj na fi de kon nag bala ñuy àgg ci dogalu yàlla ñu jiital alhamdulillahi rabbil alamin xam ni ci la lépp di defaroo ndax kat alhamdulillahi rabbil alamin ne dégg na yonent yàlla Moussa alayhi salaam dafa laaj yàlla ni ko waaw yow sama boroom sa diggante ak aadama aadama yaa ko bind te amul woon nga amal ko woo nag ñi nga am ñépp ni nañu màggal aadama te moom defalu la dara ba ñu di ko màggal ñu màggal ko kenn bañ ca nga dàq ko fab aadama dëkkal àjjana autorisé ko nag ci lépp mu tooñ nga ci biir àjjana nga génne ko mu wëlbatiku jéggalu la nga jéggal ko waaw moom aadama moomee bu la bëggee sant nan la lay sant ci xéewal yooyu yëpp mu ko yaa Moussa man kenn mënuma sant waaye sama yërmande yóbbu na ma ci tegal leen fi baatub alhamdulillahi lu jëf ji rëy rëy boo nee alhamdulilahi rek ñu daal di juboo fa tabarakallahu بنا ويكافي زيد من نعمه على نبي وعليهم أجمعين سلام ربنا ضائي من عما بصحبهم ne bu ko defee nag moom dafa ni woon du guddal waaye nag wax moo mel noonu boo dee wax léeg wax omat la diri la ba yóbbu la foo xam ni bëggoo fa woon a dem waaye lépp daal yàlla na yiw nag su ko defee nag léegi ñun itam loolii yàlla wax Moussa nañ leen ko def nañ ko def ci laa bokk nañ leen àndandoo bokk ko def nañ leen àndandoo ñun ñépp ñu def ko sant yàlla ci lépp ala kulli xaal ñu sant sunu borom tabaraka wa taala li mu ñu defal mënuñoo sant lu tol noonu yàlla bokk na ci xéewal yi mu ñu defal wàcceel lu ku mel naka sayyiduna muhammad te kat ñun dund gu jafe la ñuy dund ku bëgg lu nekk waaw ku bëgg lu ne te yow moomee sa loxo jotiwul fu ne nga diggaaleeg yow ku dul jeexle dara muy sa borom ni la fi nga juddoo xamagoo luy cant toq meew mi dugg ci sa gémmiñ ba nga mën a doxi sa soxla mana du sa ndey fa meew ma génne sa baaraamu ndey xaju fa sa baaraamu bàyyi xaju fa buñ ko kuppati woon meew dootul génn kon bu fa meew génne maa ko fa def eh, loolu foofee ngay commencé di ñaan yàlla gudd fan ba gudd fan foo xubidaas ñu gas la suul jullee la ñaanal la yàlla yooyu yépp ci xéwal yi la bokk fekkat yow moomee defaloo yàlla dara waaye ñaan nga topp la ci bàmmeel ba jubale la ak yàlla yàlla ñu ko yàlla yombalal loolu nag xéewalu yàlla la xéewal dana topp nit ba ci bàmmeel fa tabaarakallahu su ko defee nag comme yàlla moom du jeexal te ñu ne duñu doyal te nee na la in shakartum la azidannakum nañ leen di sant sant yàlla guddi gii guddi gu rëy la te lii nag ku ko fekke bokk yow yaa ngi sàkku tuyaaba boo ko waxee boo ko waxul ndax bu ñu tuddee yonent bi tudd mbaaxam tudd darajaam sallallahu alayhi wa sallam tudd ca moom sa xel dana dem ci moom sa aajo faju mën na ne bu yéene sellee insha allah bu soobee yàlla def na ko man su boobaa ñu fab na xel yépp wekk ci yàlla te doxale ci nag diggante bi te doxale nag ci diggante bi yent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ndax dañu wax ni ne nga may bu ñëw mhm. watlub bi jaahi muhammadin maa tabtaxi maa xaaba man yad'u bi jaahi muhammadin kon waaye waay waay ndekete ñun perte nu waaye dañoo nekk ci nelaw rek te yeewunu waaye bu nu yeewoo it xippeegunu waaye lépp a ngi fi fa tabaarakallahu lépp ci yërmande yàlla lu yàlla daan toppe nit bi yonent bi ñëwee yàlla soppali na loolu def ko raxma di la ko toppe wa ma arsalnaaka illaa rahmatan lil alamin su ko defee nag ñu jéem yemale wax ji wax nag ni ci làmmiñu ci ci ndigalu Cheikh Ahmed Tijani wax nag ci ndigalu Cheikh Ahmed Tijani moom lañ doon waxe moom lañuy ñuy waxe it fii ba jóge fii it ndax moom mooy suñu kilifa moom mooy sunu sëriñ Cheikh Ahmed Tijani mooy magu kër gi fa tabaarakallahu yàlla bu ko cat jàpp yàlla saxal ko wéral ko yokk suturaam yokk bi jaahi nabil mustafa ñun ñëpp ñu bokk ca te danañ ca xaj nag su ko defee nag ñu nuyu nag sunu doom yi fa tabaarakallahu ne moom mii ay doomam lañu waaye ay sëtam lañu itam fa tabarakallah dañuy déserté rek waaye ay sëtam lañu Habib a ngi nii Abdourahman a ngi nii ana maam Malick maam Malick a ngi nii tabarakallah noonu rek la mën a demee nag ne digganteem nag ak ñoom cere ju neex rek la bokk googu ñëw bokk googu ñëw dig ñu dolli ko ca cere ju neex cere diw dàqe fa tabarakallahu barakallahu ñii mooy seen baay de waaye mooy seen maamit ne kii di seen wayjur lay nijaayam mu toog fii di ko jiiñ sàcc mango waaye waaye waaye waaw seen waaye kon nag mbokk yi Seydou Bakar ne daal ñu ngi ziyaare ñëpp fu nit toll di ñu dégg ñu ngi lay ziyaara ñu ngi la ndokkeel ñu ngi lay bëgge mbooleem ñi ñëw Tiwaawan teew fi ñi fi ñëw indi fi dara dimbale jaamu yàlla yi ba ñëpp di diisoon ci ñoom wallaahi woyof lu diis ci seen kaw yal ko yàlla teggi parce que sëf leen nag lu leen du lor te kat nag li ñuy dimbalante yàlla na leen ko yàlla yombalal di jaahi mu Mustafa ñu ngi ndokkeel ñëpp sëñ Aliou Mbakke Sidou Bakar ne ñu ngi lay ndokkeel nuyu la ziyaara la li mu la wax rek fii nga toog daal sa palaasu maam sa palaasu maam nga toogee fa tabaarakallaahu déedéet nit du dem fu mu bokkul fa tabaarakallah ñu ngi lay nuyu ñu ngi lay ziyaara di la ñaan mbokki Tuuba yépp nga jotal lu ñu sunu ziyaara ci ñoom ndokkeel leen sunu nuyoo ñu ngi lay bëgg nag ndax nii nga mel njaboot gi fa tabaarakallah nii rek la war a demee bakkan ak seytaane ak mbokki àndandoo yi ñu gën a muus ñoo dox suñu diggante ba duñu gisante ñun ñëpp muus nañu boof ci suñu kanam di daanu di jooy ba domine nu te yëgunu ko looloo fi ne foo dem ci kër yàlla am fa cër njaboot ga nekkal ko fa seytaane wut na ndaw dugal ko ci seen biir yàlla nañu yàlla musal ci seytaane yàlla nañu yàlla musal ci seytaane àddina du neex mukk lu dul ñu war ànd waaye waaye ñàkk bokk néeg booy fanaan déedéet tàqalewul kenn kenn pénc bi moo am solo fa la ñépp di daje baatub laa ilaha illa allah sayiduna muhammad rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ñépp a foo dugg moom la ñuy bu dee tariqa il faut nga jaar bu dee julli foog nga jaar ci ku waxul sax toog ba yàgg nga ni yàlla baax na muy dëggit bu ko yàlla nangoo nag nga defaru yàlla nañ ko yàlla na yàlla faj seen aajo ku feebar yàlla na nga wér ku ñàkkit yàlla nga am kuy wuti yàlla na nga am ku am yàlla barkeel lu jafe yàlla na yomb yàlla na yàlla sotti jàmm ci réew mi yàlla na yàlla sotti jàmm ci réew mi yàlla na yàlla sotti jàmm ci réew ndax nit ñi noppalu bëggante nangoo dimbalante yërëmante rusante yàlla ko yàlla def bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa du ñu dañ di yaakaar yàlla ci yi nga xam ni mooy defar dund defar ëllëg yàlla nañ ko yàlla yombalal ci barke mag ñi ñoom la ñu yàlla booleel ñuy sunu wasiila ñun mënuñoo tëb àgg ca yonent ba wala àgg ci keneen lu dul jaar ci mag ñi ñu jaar fa ñuy jaar jaar fa ñuy jaar ba mu àgg ci yonent ba ñu teg ci loxo yàlla naaguwunu nag benn yoon nag naaguwunu benn yoon defuñu dara it naw lu ñu def rek mu jëm ci yàlla ñu ngi koy xeeb ndax la yàlla def mu ëpp fuuf kon nag maam Malick yëf yaa ngoog ñu teg ko ci sa loxo fa tabaarakallaahu nga àggale ko su ko defee boo sotalee ñu ñaan yàlla may ñu defal ñu tawfiq ñu dundaat ba déwén ak sago akuk wér te yàlla bu ndigg metti yàlla bu tànk metti yàlla bu bopp metti yàlla bu ay bët lëndëm wax leen amin bi jaahi rasulillahi bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam sallallahu alayhi wa sallam ko yàlla def yàlla ko yàlla def bi jaahi nabil mustafa bismillah الفالق بالوجود الذي ربي وآدم شيخ بين الماء والتين شيخ تيجان بيت الولاية مصباح ظلامي ومفتاح الكنوز وختم الكل للعين شيخ تيجان بيت الولاية مصباح السلام ومفتاح الكنوز وختم الكل للحين cheikhu Tidiane mooy ruuxul wujuud mooy qutbul kawni markazuhu ممده سر الساري إلى الناس حقيقة الكون معنى سر مجمعه فيض الإله بلا لبس ولا باس ذاك الذي نال ما لم يحوي بشر شيخ تجار بالعطايا ولم يعرف بقياسه موي غوث برايا أبو العباس يا أحمد من معناه أعظم أن يجلى بالإرطاس ومن محبته ديني وخلته عقله وروحي وجلافي وأدافي شيخ تيجان ومن محبة ديني وخلته شيخ عقلي وروحي وجلاسي وأداسي ومسمعي وفؤادي وانبساط يدي ومقلتي ولساني بين جلاسي عن التجانية تاج العارفين ومن بسابق الوادر من عرفاني كاسي بشرى لي آخذي هذا الورد سالك ويوما نالونا أجرا غير ممنون بشرى هذا الورد سالك شخوتي جنم نالا نالا أجرا غير ممنون أمن فيودي عمدتي إلى العلي وسيلتي إمام عبدني mooy mu mel ni kulli qudwati min faydihi lxatamtami warda an ibni salimi Cheikhu Tidiane mooy selili xayri hashimi mooy mambail makarimi cheikhi shuyukhil aylami wa najli qutbil wujudil aylami mamaduna cheikhi abil abbas bahril hikami min kulli awliya illahi min faydi turan fayal allah شيخ الحاج عبد العزيز ماني بصاحب الختم المحمدي قد خصنا خالق كل شيء ما لم يكن غيرنا جازاه عنا بجاه جده مولاه طوبى لنا طوبى لنا طوبى لنا فابشروا يا اخوتي نلنا المنى طوبى لنا من ملجأ عنان أمته يقود للجنان قد جاءنا خلق النجاة واجب قد نفانا رد ولا أنواع ولا, ولا أسرار خذ بيدي غدا شيخ تجان وله الكمال ومن له الجمال كيف قدوة جاء من اقتدى بين يا كامل الأنوار والأسرار خذ كان شريف مدى فاسمهم له الكمال مم له الجمال مودي قدوة جالي من أداء يا كاملا للأنوار والأسرار خذ بيدي غدا يومي فإذا عزمت بزوره كن فقصد لفاء خليفة بابا درسنا يا كاملا الأنوار والأسرار خو شمل خليفة بابا درسنا فاسأل مدينة أدعي دربا لأوه خليفة بابا درسنا يا كاملا الأنوار ولا أسرار خذ بيدي غدا شيخ تجان والروض عند عند بليدة فونها تقصد ذا الندى والروض عند بليدة بليدة فهناك تقصد ذندا سدنا فادخل أخي أخي مسلما متأدبا شيخ نلت الفداء فادخل أخي مسلما مسلما متأدبا شيخ نلت الفداء الأنوار والأسرار خذ بيدي غدا يا كامل الأنوار والأسرار خذ بيدي غدا خذ لي يدا خذ لي يدا شيخ سيدي أبو بكر نينا شيخ خذ لي يدا خذ لي يدا خذ لي يدا شيخ سيدي أبو بكر نينا شيخ خذ لي يدا دباخ مالك محمد الأمين خذ بيدي باب كرزنا نشاء خذ لي يدا مالكنا محمد الأمين خذ لي يدي سر باب كرزنا نشاء خذ لي يدا